la gëj na si lamb ji lool. dëgg la dafa mbër moom mu jàng war. contre ak Moustapha Gueye numéro 2 la woon. contre Moustapha Gueye numéro 2 ak Moustapha Gueye na. diggante Mambala dafa mbër. Mambala dafa mbër. ñu ngi ñaari mbër yaa ngi leewatoo. la ilaha illallah. moo féete seen càmmoñ. dafa mbër moo féete seen ndeyjoor. dafa mbër Mambala. dafa mbër Mambala. mambala moge moge bulu buloli wow wow fere suñu jamagn mambala ki mambala jokas na mambala jokas na dafa mambala doxali ci kaw dafa mbeur dafa mbeur ri postere na inde dafa mbeur mambala dafa mbeur mambala dafa mambala dafa mambala dafa mambala muy Cerno Mame Balla moo jiitu si lamb Tapha Mbeur waaye garab ci kaw lay fekkante waaw waaw daa liggéey ba yegg si fii Tapha Mbeur Mame Balla xeex nañ ñu ngi xeex Mame Balla ngi dox si kawam Mame Balla la dafa mel ni ñëw daa bëgg a diriger combat bi jàppante nañ Tapha Mbeur jël la tànk ba Mame Balla ngay mboot Mame Balla ngay mboot Mame Balla ngay mboot Mame Balla ngay mboot Mame Balla ngay mboot Mame Balla ngay boot Mame Balla daan na Tapha Mbeur Mame Balla daan na Tapha Mbeur Mame Balla daan na Tapha Mbeur Mame Balla daan na Tapha Mbeur Mame Balla daan na Tapha Mbeur Mame Balla daan na Tapha Mbeur laa ilaaha illallah Mame Balla daan na Tapha Mbeur Mame Balla daan na Tapha Mbeur mboot na ko mboot ma rey na Mame Balla Mame Balla mboot na Tapha Mbeur mu daanu Mame Balla daan na Tapha Mbeur